ñoo bëgg match léegi dañuy jàll ci leneen muy un jour au Sénégal un jour dans le monde. tey jii juróom-ñaari fan <laughs> ci weeru janvier ñu ngi fàttaliku euh, ci atum 2001 li fi xewoon mu di ab référendum constitutionnel ngir ñu dindi fi Sénat ak conseil économique et social loolu ak yeneen mbir yu xew juróom-ñaari fan ci weeru janvier ci ay at yu wuute moom la ñuy seetaan ñëwaat waxtaan ci. juróom-ñaari fan ci weeru janvier atum 2020 benn cérémonie bu CAF Awards amaloon fa ñu naan Hurghada ci Égypte doomi Sénégal bii di Sadio maane ñu tabb ko euh, footballkat bu gën a xarañ ci Afrique ci atum 2019 mu jiitu doomi Égypte bi di Mohamed Salah ñu bokk di jouer ci Liverpool FC commission vérité réconciliation juróom-ñaari fan ci weeru janvier atum 2019 euh, ci la ko président bu Gambie Adama Barrow nag euh, daal di rek euh, samp boobee kuréel nag li ko tax a jug rek muy enquête ci li ñu ne ak jalgati la ak nag ñàkk a sàmmonteel àq ak yelleefu doomu aadama ca Gambie diirug li fa Yaaya jàmme nekkoon ca nguur ga atub 1994 jàpp 2016. tali bi dox ci diggante ndakaaru ak Saint-Louis euh, ca Mexe juróom-ñaari fan ci weeru janvier atum 1961 lañu ko daloo ci teewaayu euh, président Léopold Sédar Senghor moom moomee nag maire bu Jënum Malick Ndiaye dalal ko laata muy wëyal ab tukkeem ca diwaanuk Ndar journal satirique français boobu ñu gën a xam ci Charlie Hebdo juróom-ñaari fan ci weeru janvier atum 2015 euh, ci lañu ko songoon fukk ak ñaar ci doomu aadama ñàkkoon ca seen bakkan tey nag dañuy taxaw ci juróom-ñaari fan ci weeru janvier atum 2001 ak référendum constitutionnel boobe ñu amaloon ñi ne woon waaw nag ëppoon foofu ñi d'accordul woon Sénat bi conseil économique et social ñu jële ko fi Moustapha Diakhaté nekkoon njiital groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di delsiwaat ci mbir moomee effectivement le 7 janvier 2001 euh, ci la président lay Wade dindi woon Sénat bi euh, la ko jiitu nag bi muy def campagne di dagaan baatu réew mi euh, dafa doon wax ne Sénat day kuréel gu amul njariñ yàq alal la foo xam ne dañ fay dugal ay politiciens rek la mu diggoon waa Sénégal ni su ma faloo dinaa ko dindi ah, effectivement bi mu faloo euh, dindi na ko ndax bi ñu defee référendum 2001 euh, bi ci la ñu dindee Sénat bi waaye nag li ñu seetlu mooy mandat bi nga xam ne moom la falu bi mu daan jeex delloo si waat na Sénat bi ndax le 12 euh, février 2007 lañ def benn révision boo xam ne ci assemblée nationale la ko jaarale mu délloo si waat Sénat bi waaye même lu ko jiitu sax avant may di dellu si waat Sénat bi bu ngeen ko fàttalikoo ci 2004 euh, créé woon sosoon na kuréel gu ñu tuddee woon CRAES muy euh, conseil de la république pour les affaires économiques et sociales conseil boobu euh, ñaar téeméeri nit la nekkoon alors que Sénat bi mu dindi woon juróom-benn fi fukki nii rek moo ci nekkoon kon yokk na ko. wolof Njaay daf ne dige bor la surtout dige politique parce que. xëy na digg bi ngay digg moo tax nit ñi fal la. yu mel noonu moo tax Sénégal yi dem dem ba daanaka waxi politique ñu di ko jàppe aw xiinu suba ne lu mu ñuul ñuul. Euh, du tax mu taw maanaam nitu politique du wax dëgg loolu nag jàpp ne ñun ñëpp war nañ cee jël conscience du du du rafet. Euh, nun ñiy def politique daal war nañoo gën a respecter askan wi te sàmm digg bi nga xam ne moom lañ leen di digg ndax jàpp naa ne digg moom wax dëgg yàlla kii ay diggante ay nawle surtout nag. kuy laajum réew ak ñi ñi koy fal da ngaa war a respecté li nga xam ne moom leen moom leen digg parce que digge engagement la digge aw sas la woo xam ne da nga koo sasoo ak askan bi aw sas nag des ko war a respecté. jërëjëf ki ne Deme kon diggante 99 ba 2001 boobu ñu ko supprimer Sénégal daanaka Chérif ab système bicaméral la ñu amoon muy ñaari chambre chambre haute ak basse haute bi doon Sénat Sénat dindi nañ ko fi indiwaat ko dindiwaat ko. Euh, finalement en 2012 la ko président Macky Sall dindiwaat bañ ko indiwaatee en 2007. en 2007 comme il l'a parce que wax dëgg doog na pouvoir ci campagne bi lépp dañu ni institution yi amu fi woon njëriñ. Mm. donc moom taxoon quand référendum bi ko fi indi aussi en 2001 ñu daal di dindiwaat li nga xamante ne kon moom mooy Sénat bi mais. indiwaat dañ ko fi moom Abdoulaye avant muy dem à un moment donné sax c' était président Sénat bi Pape Diop bi mu ko fi mm. indiwaat ne mm. mooy conseil économique social boo xamante ni Ousmane Masseck Ndiaye ndem si yàlla si moom moo ko jiite woon laata muy bi président Macky Sall moom tam Sénat bi li taxoon mu di waat ko fa affaire inondation la woon dafa mun dans la banlieue en mu dem tukki ñëw ne day dissoudre Sénat bi parce que xaalis bi bari na dañ mën nañ ko def ci li xamante ni mooy affaire inondation yi ci lañ lancé woon plan décennal même de lutte contre les inondations on ne sait parce que moom est que dina ki ñëwaat parce que indi na fi moom it beneen institution boo xamante ni mooy référendum euh, après Sénégal bu mu amee indépendance en 1960. ñu xool ni référendum boobu ñetti mbir la ci euh, président Wade jublu mooy d' abord supprimer Sénat supprimer li nga xam ne euh, moom moo di. conseil économique social et environnemental. le nombre de députés mu wàññi ko de 140 yóbbu ko 120 beneen bi ci des aussi le mandat présidentiel bi doon ñëw ñu jëlee ko juróom-ñaari at. yóbbu ko yóbbu ko juróomi at. loolu moo doon dogal nga xam ne président jëloon dugaloon na ko parce que dafa jàppoon ni le train de vie de l'État dafa c'était exorbitant mais entre la mu def ak clignoter gauche jàdd droite <laughs> c'était pratiquement def ceeg sorti ci lépp a <laughs> d'accord merci beaucoup Alaaji Malick c'est par la suite des années après ci la ñu soppi fi indi conseil économique social et environnemental dolli ko ca merci léegi léegi dañuy jàll ci xibaar yi ànd ceeg Cheikh Tidiane Diaw